والقلم وما يسطرون asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan suñu borom mu may ñu dund gu barkeel di santaat bu baax ci xéewal gim ñu may ba ñu ñëw ci programme bi nga xam ne moom la C3S compagnie Serigne Seck Sénégal di organiser at mu jot dubbee ko yaatal mbindum alquranul karim ñu ñëw ba agsi ci tey jii war a amal neexal yi nga xam ne moom la ñuy jox ñi nga xam ne ñoo ci gën a ràññeeku war a ñëwit ci cérémonie boobu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax ma feggoo ak ki nga xam ne mooy suñu jëwriñ Serigne Mbacke Sourang di kenn ci liggéey bi bokk ci comité scientifique bi itam ñu di ko jàppale ci wommat programme bi Serigne Mbacke bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن leen nuyu bu baax di leen ziar di leen ndokkeel di leen jaajëfal ci jataay bu am solo bi di jataay alquran ci champs ramadan al mubarak ni ko Serigne Mbacke si la waxe ku xam jataay bi xam lan mooy solo si mooy génnut alxuraan ndax alxuraan Sëñ Mbàkke ku ne xam na ni ay étapes yu bare bari la ni mu wàccee nu koy jànge diggante mask yi tomb yi ak la sa aju lépp tey nag ñu jël puccaraan yi ko lool loo xam dafay aju si bind alxuraanul karim muy rasmul quran boo xam dafay sukkandiku si mu al usmaani yi bi nga xam ne képp ku gëstu alxuraanul karim xam nga ni mbindum alxuraan nekku ni nit ki daf koy binde ci nu mu ko neexee dafa am ay règle am ay dawaabit yoo xam ne amoo sañ-sañu génn ko mbir moomu nag ay mbokk yu bare bari liggéey ci liggéey bu am solo si euh, diggante bu yàgg jury bi itam liggéey si si ay jalasaat yu ama am solo ba tey jii nag ñu àgg si taral ñoo xam ne ay gane alquran lañ Serigne si la nekk nii ci suñu ginnaaw. Mhm, jërëjëf jërëjëf sëñ Mbacke. Euh, ñu woo euh, ñi nga xamante ne ñoo war a ubbi jotaay bi ci alquranul karim di dong yi bàyyi ko fële ca Bayti Seck. Bayti Seck waaw bismillah Modou Guèye yi nga xam ñoom ñooy ubbi jataay bi ndax jataay bi alquran moom alquran lañ koy ubbee ñi nga xam ñooy ubbi jataay bi ñu leen fàttali bu baax ne ñu ngi jógee ñu ngi jógee bayti sekk daara joo xam ni alaaji sëriñ sekk moom moo koy saytu nekk daara joo xam ne daara ju am solo la at mu ne ay kàngam ñoo fay génn di mokkal alquraanu karim waaye itam di yënguti itam ci yeneen langue yi audu billahi min ash-shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim inna allaha la yastahi ليضرب مثلا ما بعوضة أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا صدق الله العظيم jërëjëf jërëjëf Baye Serigne Seck di donga bi doon jàng alquran noonu nekk ci daara ji nga xam ne moo nekk ca bayti sekk di daara joo xam ne alaaji sëñ sekk mii di amal concours yaatal mbindum alquran mi moo koy taxawu muy daaray internat ñu ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu def fa barke sëñ Mbàkke te sëñ Mbàkke daara jooju lu mat ñaar téeméeri personne ña nga fa ñuy jàng alquran ak ñoo xam dañuy jàng yeneen langue yi ni ñu def rek mooy woo ki nga xam ne mooy sëñ Bolle Mbay boole mbay mooy yëkkati kàddu gi nga xamante ne mooy kàddu dalal gan ñi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alhamdulilah. allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. ginnaaw bi ñuy sante yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak ci sa sant. ñoo ngi leen di dalal di leen wax dal leen ak jàmm. ñoo ngi leen di. dalal ci turu alxaaji sëriñ sekk di leen wax dal leen ak jàmm ahlan wa sahlan marhaban bikum kon ñoo ngi leen di sant bu baax a baax ci wuy si bee ngeen wuy si ndax woote ñu wuy si la dafa neex bii nag mooy eh, cinquième édition bi ci biñ ko tàmbalee ak léegi kon ñoo ngi leen di sant ci jéego yi ngeen xam ne moom ngeen jéggi ba ñëw fekk si ndaje mi yàlla na ko yàlla def yiw ak jéego ngeen di jéggiwaat ba ñibbiwaat seeni kër na ko yàlla def yow def ko ci suñuy balance asanaat ci daraja yonante bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëñ Bolle eh, ci kàddu yooyu nga xam ne gan ñi moom daanaka kenn ku ne mën ngaa dalal sa bopp ndax gane alquran la gani daara la woote bu ñu woote ci alquran la ku wuy si sa bopp nga wuy sil sëñ Mbàkke waaw loolu sëñ Mbàkke lu wér la mbokk yi. Eh, jullit yi moom xam nañ leen si loolu heure boo wootee ab woote ngir alquranul karim kenn ku si nekk boo yëkkati sa tànk li la tax di wuy ji lenn rek la muy wuy ji woote borom bi tabaaraka taala wuy si woote borom boobu tabaaraka taala rek ndigal loolu moo leen tax a teew si fii ngir dundu bëccëg boo xam ni bëccëgub alxuraan lay doon ci san ramadan al mubarak kilifa yi toog ci seen ginnaaw di waa comité scientifique bi nga xam ne ñoo doon wommat liggéey bi ànd ak mbokk yi wër réew mi waaye saytu mbind mi topp ko ba agsi tey ci cottitali ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax ci seen liggéey boobu ngeen def ak coono yi nga xam ne moom ngeen ci tegoo yëpp euh, sëñ Mbàkke ma bàyyi la ndax kenn nga ci ñoom bu ko defee nga joxe seen i seeni i kàddu dalal leen ñi door a ñëw ci vidéo numéro un incha allah. waaw ñoom sëñ Mbàkke ni nga ko waxee lu am solo la ndax ab liggéey boo ko gisee mu agsi fii yoon wu gudd la wu la woo xam ni def nañ ci seen ay waxtu guddi ak bëccëg. ni nga tuddee jëmm yooyu muy sëriñ Fallou Seck sëriñ Moustapha Diop Ndar sëriñ Khadim noonu ngay tuddee sëriñ Saam Mbacke sëriñ Cheikhouna Mbacke Abdoul Wadoud sëriñ Mbacke Abdourahman ak mboolem mbokk yi ngay gis ci suñu ginnaaw ñëpp boo koy lim xañ na danañ ci ñëw ñoom bu ñu jëlee kàddu yi waaye liggéey bu yaatu la boo xamante si ni ñu ngay gis ñu nga gisul ñoom ñoo ëpp sëriñ Mbacke. بنعمة ربك بمجنون